wajalilaahi maskani Tuubaa baat misrasmi abijaayi xayri man abaat asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki bi ñu ngi leen nuyu baax di leen ziyaare di nuyu sëñ Fallou ak mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ci këru jaboot gi eh, ci turu Touba ci kanam yëpp waaye di leen nuyu ci turu commission sociale ak suñu jëriñ ñu àndal sëñ Mourtala mbake Euh, di wax ne rek tey Touba ci kanam dafay dellusiwaatoon ci turu commission sociale euh, doon bàyyiwaat xel comme niñ koy bàyyi xel toujours tout tànk yi nga xam ne dañoo nekk fii euh, muy jigéen yi ci li nga xam ne dañ koy aajowoo mu jëm ci lu mel ni ay yére waaye lu demee nekk ab dund ak ay kuus ak yëpp yoo xam ne dañ koy aajowoo nga xam ne commission sociale fi ne dafa taxaw temm ci di leen bàyyi xel fu ñu toll nga xam ne tëkkatu ko ci jamono yoo xam ne dañuy joxe wala yëpp muy du joxe saa su ne ñu ngi koy bàyyi xel loolu nag nekk ab soññee boo xam ne bu ama am solo la ñu di ci soññi taalibe yëpp waaye di ci soññi tamit bokki dëkkandoo yëpp yi nga xam ne ñu ngi dëkk Touba ak li ko wër ak bokki jullit yëpp ndax kër gi kat dafa nekk kër goo xam ne nii kenn ku nekk war na koy bàyyi xel ndax kenn xamut euh, kañ nga fi sa sa sa nit di ñëw waaye ñi fi nekk tamit dañuy ñu wo ay ndimbal ndax ay tout tànk lañ yoo xam ne nii mën a luñ seen bopp dara te ñi nga xam ne ñoo leen fii indi tamit day fekk ñu ci bari ci ñoom duñ leen lati dara ak jaaxle mooy tax ñu indi ko fi te it buñ indeet ñàkk mënal googee moo leen di topp ba duñ mën a am luñ àndeek luñ àndal bàyyi ko ak ñi nga xam ne ñoom lañ koy dénk nga xam ne dañ leen koy jox rek wan leen ginnaaw kon nag dañuy soxla soxlawoo ndimbal lool waaye dañuy soxlawoo tamit ñëpp di ci bàyyi xel di ci defal yàlla bu ko defee kon ñu ngi soññi sunu bopp waaye di soññi mboolem jullit fu mu mën a nekk ci àdduna bi ñu xam ne fii nga xam ne fi la jirim yi nekk di tuut tànk yi day ñu soxla woon di mën lañ ndax lépp lu doom aadama di soxla dañ koy soxla waaye mën luñ seen bopp dara te ñi nga xam ne ñoo fi nekk di jaayante ak ñoom tamit amul lenn loo xam ne nii fuñ sës la lu dul ci wërsëgu jaami yàlla yi lañ fas yéene di leen dimbali ndax li ñuy soxla dafa bari rawatina lu mel ne dund bi nga xam ne meew mi jëfandikoo dafa cher lool te liñ ciy soxla par bés bari na lool dégg sunu kàddu ci turu Touba ci kanam gépp waaye rawatina commission sociale lépp loo mën di def nga di ci bàyyi xel këru jirim yi te bañ koo yemale ci rek defoon naa ko benn yoon waaye nga jàpp ne lu la war la jamono ju nekk nga di leen gendiku ndax dañoo war di añ di reer di tëdd comme ni nga koy defee bis bu nekk te kon lu ñuy aaja wala te loolu rek ci askan wi rek la mën a bàyyi koo mbokki jullit yi mbokki taalibe bi ñu ngi nuyu baax te di leen ziar fii ci Orphelinat yi nga xam ne ñoo nekk ci liggéey liggéey bi muy suñ Habib bu moom suñ Fam Semoun Fadel ak mboolem ñi nga xam ne ñi nga ànd ak moom ci liggéey bi rek di leen jaajëfalati ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne am nañ ko ci bërëb bi di kër maam Jaara fi ñu taxawoo ji mi ak bàyyi ah, wax dëgg yàlla lii moom daanaka jëruñu koy waxaat maam duguleet waxtu wu nekk ñi nga ànd ak ñun liggéey bi ci biir ak ci biti ci luñ teew ak luñ fàddu ndax waxtu wi ñu yokk ay communication yoo xam ne ñu xam ne Touba ci kanam ñu ngi jàll message lu jëm ci kër Maam Jaara ca loolu sensibilisation boo xam ne na fa seen kàddu jot ñun suñu kàddu jotu fa ca loolu amal nañ njëriñ kër gi loolu bàgg ci lool jotaay bii ñëw tey mën nañ bii mooy gàtt-gàtt ñeenteelu yoon ci at mi kon li wax ni léegi tëkkatuñ ko ci ay jamono ay événement waaye dañu xool waxtu wuñ ne liggéey moom wax dëgg yàlla euh, liggéeyam suñu borom waxtu wu ñu geesoo gis Touba Ca ñu geesoo tam digg ñu Touba lancé message boo xam ne mi jëm ci kër Maañ ba bëkk dima ci mujj koo xam ne yaakaar naa la ma waaye ni ma dégg na commission sociale ñëw na fi di wax ni kër gi dafa am ne ñu tooy xëpp ñi ay ñett fan lañ am di ay bis lañ am seen yaay génn ëllëg bàyyi leen amuñ kenn ku leen taxaw ñu ëllëg ci kër di leen taxaw loolu ku gis yéen la ñuy dunde ci biir ay li nga wax ay jigéen ñoo fa nekk di leen saytu di leen toppatoo ñu solo ci ay meew di solo course solo ay ordonnance ak yeneen yoo xam ne nit da koy solo ci biir kër sars bu rëy waaye nag li mu wax léegi ñu bi nga xam bu mukk ca loolu mooy ko ànd ko mbokk teel ak mbokk kon nag jërëjëf ci tubaab kanam ci turu kër Maam Jaara ak mboolem ñi xam ne ñoom lañ àndal liggéey bi yéen sant yéen gërëm wasalaamaaleykum في الدين أو في ديني ولا جانبي وجل الله مسكني طوبى بات مثل اسمها بجاي خير من أبات